أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla subhanahu wa taala ñoo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yàlla na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu ñoo ngi ba tey ci téere yàlla bi subhanahu wa taala toll ci ala imran di jël aaya 72 73 74 mu nekk ñetti aaya yoo xam ne sunu borom subhanahu wa taala dina ci jàngal ci ñetti aaya yi ñetti mbir bu ci njëkk mooy tasjilul makri wal xidaa alal yahud wa annahu sifatun min sifatihim allaazima lahum ila yawmi alqiyaama mbokki jullit yi sunu borom subhanahu wa taala mu ngi jàngal ci aaya yi nekk sunu kanam lenn ci ay melokaan di melokaanu yahuud sunu borom dinu ko wax suñu gisee ci quraan sunu borom subhanahu wa taala dinu leeralal ak di ñu jàngal bis bu nekk pexe yahuud yi mooy pour ñun ñu bàyyi ci xel waaye pour ñun ñu jële ci mbind pour ñu ciy teg sunu baaraam ndax kat sunu boroom du waxantu te lépp lu mun wax rek loolooy li nekk dëgg suñ ko gëmee ak buñ ko weddee buñ ko jàppee ak buñ ko bàyyee sunu boroom moom lu mun wax rek mooy dëgg sunu boroom moo ñuy wax lenn ci melokaanu yahuud loo xam ne dafa takkook ñoom du leen bàyyi ba yowmal qiyaam yàlla mu ne yahuud yi ay pexekat lañ ay warkat lañ gis ngeen àddina bi yépp ñoo ko dugal ci ay giraawaali bépp guerre bu ngeen gis ci àdduna bi loxo yahuud yaa ngi ci bépp pexe bu ngeen gis ci àdduna fépp fu ngeen gis safara di tàkk yahuud yi ñoo ko ñoo ko keree mbon gu ngeen gis yàqute gu ngeen gis ci nit ñi ñu yàqu pexe yahud yi la ak seen seeni jëf kon sunu borom subhanahu wa taala bu nu waxee loolu ne ñu yahud yi dafa bokk ci seeni pexe seeni melokaan ay pexekat lañ foo leen gis ñu ngi fexe loolu moo tax yahud ñooy xeet wi ëpp ci àddina yu yàlla yónnee ay yonent waaye yonent yooyu nan leen de lan lan leen def dañoo rey ñi ñii ñu leen di fexeel pour rey leen yàlla subhanahu wa taala daal leen di musal ñaareel bu ñu yàlla di wax mooy alkashf an taassubi lyahud wa asalibi tamwiyati tamwiya wa tadlil wal ilaami alalami alyawma mazharun min min mazahiri tadlil lyahud bokk na ci lu ñu sunu borom di jàngal ci aaye yii mooy yàlla day génne ñoom yàlla dafa fekk ñu nëbb ay mbir yàlla génne ko duñ ko wan sunu yàlla waxul woon yahudi nii lan mel ñun duñ ko xam mu waaye yàlla moo génne yiñ doon nëbb ñoom yahudi yi loolu ñuy wax taassub mooy bor di compte ci biir xeet xoolal yahud bu amee feet bu muy màggal feet boo xamante ne dañ ciy rey ku dul yahud màggal ko feet di ngeen wax bi maanaa tey yahud yi bu ñu reyee ay ay jullit dañuy def dañuy feetu dem nañ ba ne ñoom ñooy saabullahi al muxtaar ñu ne ñoom ñooy peuple éli ñoom la yàlla tànn dem nañ ñu ne ñoom ñooy ay doomi yàlla nahnu abnaullah wa ahibaahu du loolu ngeen jàng ñu ne ñoom ñooy soppe yàlla yi ñoom ñooy doomi yàlla ñoom dañoo def ne ñoom ñooy ay nit ñu ne kudul ñoom du nit moo tax rey la dagan loolu yàlla moo nu ko génneel ci Quraan moo nu wax ne ñii seen pas-pas mooy bor di kontante waaye yàlla moo ñu wax seeni yoon yi ñuy jaar pour réeral nit ñi waaleykum salaam wa rahmatullah yonent bi nee na yàlla nee na ngeen xool lenn rek tey lenn loolu ñu naan information ci àdduna ñan ñoo ko occupé ñan ñoo ko moom yahudi jumtukaay information yi ci àdduna bi yëpp yahudi yee ko moom ñoo moom télé yi ñoo moom journaux yi ñoo moom rajo yi internet lépp yahudi ñoo ko moom moo tax lu ñu bëgg a def def ko ay pexe la yoo xamante ne pexe yu ñuy jaar pour nelawloo nit ñi pour réeral àdduna bi moo tax gis nga sunu peuple yi sunu réew yi gis nga nu ñu leen nelawale du ñu yeewu ba yowmal qiyaamati télé yi fi nekk ñoom ñoo ko moom ay nit ngeen di séen ci kaw rek ñuul tudd Muhammad Abdallah yor ay turi jullit ngeen yaakaar ne ñooñ ñoo moom télé bi parce que ñoo ko ubbi ñooñ lañ bind ci këyit yi waaye yahudi yi ñoo nekk ci ginnaaw ñoo ko moom ñoo ko financé ñoo la jox programme ban télé ci télé Sénégal yi ngeen gis muy muy teg muy muy muy muy def ay waxtaanu islam muy leeral islam comme nu mu waree ban télé ban télé ban télé ngeen gis ci télé islam yi laa wax télé télé yi mu teg émission islam yi muy teg lépp islam la amul musique amul fecc amul futteeku yaramu neen amul ay animateurs yu kàccoor amul ay saay-saay amul ay bandi ban télé la wax leen ma benn wala moo loolu ñoom ñoo nekk ci ginnaaw télé yi kon mu ne loolu rek doy na ci ngeen xam ne tey information ci àdduna yahudi yee ko yore te lu leen neex la ñuy manipuler information yi su amee benn dëkk ay nit yu fay xeex pour ne dëkk bi nangam ak nangam na fi am dañuy xool ñooñu ñooñu bu ñu nekkee ay julit ñu tuddee leen lan terroriste fondamentaliste islamiste ñooñu bu ñu nekkee ay chrétien wala ay juif wala wala wala gëm yeneen idéologie ñu tuddee leen rebelle ñu ne ñoo ay rebelle lañ bu fekkee ay julit ñoo def lu bon par exemple bu julit bu sàccee dañ naan un voleur bu fekkee ki sàcc ñoom la bokk ñu ne dafa détourné wala bien mal acquis nga Sénégal loolu ngay dégg bi ministre yu sàcc ñu ne bien mal acquis wala wala su benn waay sàccee fii paak ak kuddu lu ñuy wax sàcc la kee moom lu mu sàcc ay milliards ñaar ñi kon moo gën a nekk sàcc waaw kon kay gis nga mais xoolal tur bi nuñ tuddee kee kee waxuñu sàcc la de dañu ne alal ji mu am ni mu ko amee baaxul quoi baaxul dégg nga de bien du loolu la bien mooy alal mal acquis mooy ni mu ko amee moom man de ah ci sama dégginu tubaab jànguma tubaab nag yéen yéen universitaires yi waaw bien mal ak ak sàcc lu lan mooy différence bi mais xoolal noonu la ñuy def maanaam information bu ñu la koy jox su leen neexee nga mer ci information bi ñu la ko jox bu leen neexee nga kontaan maanaam daal ñoom nu nu lu ñu ko bëggee lan la koy joxee tey soo gisee su ñuy joxe information ci islam da ngay tiit mais bu ñu lay jox information ci wàllu àddina bi nii dañ la koy defal ba nga xam ne du la teree nelaw loolu moo ñu loolu moo ñu indil tey ay jéyee moo te nag yooyu yàlla subhanahu wa taala bi mu ñu koy wax ci alquran bi boobu kenn xamul lii ñëwagul waaye lan moo tax ñun ba léegi yee awuñ ci c'est parce que alquran bi ci boppam ñun ci boppam nit ñu ko joxee baaxul nit ñi ko jàngalee fii ci Sénégal baaxul yenn saa yi nag boo waxee loolu ay nit mer xoolal ñii li ñuy wax rek ah nit ñi nekk ay jullit boobu ba léegi di jàng alxuraan di julli di di di ñii nag toog fii na waaw dëgg la ñu ngi ñuy jox alxuraan boobu ñu ngi jàng ñu ngi julli waaye dëgg-dëgg li tax alxuraan bi jóg moom lañ xamul ñun fi lan la ñuy def alxuraan téere barkeelu wala. téeru barkeelu di raay diwu bind naan sangu takk ku dee ñu ne kaa leen jàng jeex du loolu rek la ñuy jox waaye dëgg-dëgg est-ce que looloo taxoon alxuraan jóg loolu mooy wax bi est-ce que loolu moo tax alxuraan jóg même même firil sax ak jàng bu ñu ko doon jàngal da ngay dégg ñu ne la kenn du firi alxuraan waaw ngay dégg sax yenn saa yaay mag naan xale yi dañoo sob ay xale yu ndaw naan dañuy firi alxuraan nga xam ne xamuñu dara jànguñu dara ne dañuy firi alxuraan alxuraan bi buñ ko firiwul alkande la ñuy jural mooy li ñu alak nii tey nga gis jullit bu ci xamul dara bu njëkk ba da ngay nekk daara nga jàng alxuraan wàcc juróom-ñaari yoon doo xam fatiha lu muy firi wala dem leen fuuta ngeen fekk fa ku wàcc alxuraan ñetti yoon waaye soo ko ne firil quran bi naas mënu ko dem leen bawal ngeen gis ku wàcc alxuraan bind kaamil ñaari kaamil su la wanee kaamil yi mu bind da ngay defe ne machine moo ko bind bind nii te du ko xool ba mu jeex tak du fàtte aaya du fàtte tomb du fàtte aaya bi fu muy jeexee du fàtte sadd nga gis nii ñu waaye boo ko ne firil ma fatiha mënu ko loolu ban njëriñ la du ma fàtte mukk benn jàkk ci sunu jàkka yi benn waaye bu mokkal alxuraan muy xëccoog imaam bi jiite maanaam muy wan ne imaam bi man maa la dàq jàng alxuraan dafa jàng alxuraan ba mu jeex mokkal mais jàngul fiq benn bis imaam bi bëgg woon waa jàkka ji kii dafa jàng alxuraan mais xamul dara ci islaam alxuraan rek nag mokkal na ko waaye xamul dara xam nga imaam bi ni mu def ñuy julli timis imaam bi def premier rak ñaata rak moo ci des ñaar imaam bi def deuxième rakk rek arrière daal di koy jàpp indi ko ba fi imaam di taxaw rek imaam bi samp ko rek imaam bi génn néegam paa bi taxaw xamul nu ñuy nu ñuy réparé julli mu gestu na mbooloo mi ne lan laay def julli gi yàqu imaam bi ne ko xamoo dara nga may jéem a jaay mbagg xamoo sax nu ñuy nu ñuy mottalee julli bon nga waxati fi rek gis nga nu mu ko moom tamit pour moon ñi ni kii xamul dara foog mu yàq julli gi
ñoom ñaar yëpp yàq nañu.
ñoom ñaar ñëpp yàq nañ julli mais kële sax moo gën a yàq parce que kee moom moo ku njëkk ki parce que moom li mu def moo jaaduwul waaye pour mu wan ne ñu ne ñiy song ñi koy song di di faral kee pour mu wan ne ne kii seen mbir mi xamul dara noonu la def. loolu loolu musiba la xoolal ki jàng alquran mokkal ko lépp mën na ko waaye ndeysaan xamul lu muy tekki xamul fiq mënul julli gis nga te pourtant da ko mokkal fu nit yàqe mu wax la ko kon loolu moom mooy nga xam ne mooy noonu yahudi fu ñu jaarale bàyyi ñuy jàng alxuraan waaye du ñu xam lu alxuraan jóg lu tax alxuraan jóg waaw waaw loolu mooy sunu problème ñetteel ci li ñuy jàng tey ci aaya yi mooy sazajatul yahud almut almutanahiya fi lfahmi masaili ddin wal itiqad bokk na ci liñ ñu jural liñ ñu dugal kirim boo xam ne musiba boo xam ne duñ ci génn ba yowmal qiyaamati mooy ñuy jàng diine te duñ dégg diine waaw nekk ci lislaam te xamoo ci li nga nekk nëbbuñu masala diine yépp fexe ba pas pas bi jullit bi di fas bu mu baax da nga daan jàng tafsir ñu ne la tafsir bi israiliyaat la wala loolu dafa bokk ci ay isra ay tafsir a ngi fi ci ci ci àddina bi ay xadis a ngi fi ci àddina yoo xam ne ay israiliyaat la wérul dara ci diine israéliens yi ñoo ko ci dugal ci islam bi dara wéru ci am na mais tey boo jàngulee nooy nooy nooy leerale ñaar yooyu da ngay dem ci mboy mboy bi rek di def lu la neex fi nga defe ne yaa ngi ci diine loolu dafa am pas-pas bi baaxul ñu donn ko ca maam ya nag waaw ñu gëm loo na ne lii nga nekk ku ci nekkul baaxul tey incha allah ci aaya yi ñuy jàng di ngeen jàng di ngeen dégg loolu sunu borom subhanahu wa taala di ñu leeral loolu fexe ba nit ñi nekk ay mbooloo mbooloo ay kuréeli kuréel ay këri kër ñu indi ay mbir dugal ko ci lislaam yàqate yàqate yàqate su fekkente ne yahuud yi ca jamono yonent lañ commencé woon fexeel yonent alayhi salaatu wasalaam di ko jaxaseeg di ko rey dem ba tabax jàkka woo yonent bi por na yonent bi ñëw inauguré jàkka ja yàlla xamal ko ne jàkka ji masjidu diraar la bul ci taxaw ñun kon ñun nag ñu dem ba nax yonent bi su doon du yàlla yonent bi dem ndax jàkka lañ tabax walal jàkk ne ko kaay ubbil ñu sunu jàkk waaw ñun defar nañ jàkk tey bu julli defaree jàkk ne la ñëwal ñu dem foofu lay wax da ngay dem wala doo dem da ngay dem parce que yow xamoo waaye xoolal yonent bëgg a dem yàlla ne ko masjid bi masjidu diraar la laa taqum fiihi bul fa taxaw abadan la ko yàlla wax yàlla yëgal yonent bi ne ko jàkk ji fi ñu ko tabax fondement bi ci miiru jahannama la samp loolu yàlla moo ko woon yonent bi ñoo ko defoon ñu dem ba posone yonent bi bu ko rey hmm? ah kon bu fekkee ne ñooñu ñoo def loolu masamaak ñun cundung yi yonent bi lan moo ko ci génne mooy yàllaa ko yónni yàllaa ko aar yàllaa ko doon indil information yonent bi jóge na fi nag kon ñun su fekkoon ne dañoo jàpp ci lu yonent bi jàpp jàpp sukkandiku ci kon day danañu rëcc ci lu baree bari ci seeni pexe waaye nag dañoo dégglul yonent bi jàppuñu ci lu yonent bi indi woon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ixwatal iman kon li mooy sunu darsu tey ci tënk ci ñetti aaya yi nga xam ne moom la ñu war a jël tey أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يجاء أو يحا أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم برم سبحانه وتعالى من وقالت وخنا طائفة بن كرل بن مبولو من أهل الكتاب ci ñooñu téere yi ñooñu lan lañ wax ban programme lañ tëral lan lañu fexeeti li ay pexe la ñu yàlla wax yàlla nañu benn mbooloo ci kuréel ci yahuud fexeel nañ juliti ku mel ne Kaab ibnul Ashraf ak Malik ibnu Soyf yàlla na alkanda yàlla wàcc seen kaw nee nañ dajale nañ seeni mbooloo tëral ay pexe xam nga ñun ay julit yi ñun jullit yàlla rek moo nuy musal ñun dajaloo di naan ataay rek te di nelaw topp ci ginnaaw àdduna di daw di dajale xaalis ak ak ak ak ak ak ak loolu rek mooy sunu mécc waaye dajaloo toog di xalaatal lislaam di xalaatal diine ji naka lay demee di xalaatal ñun naka la ñuy def ba dem ci kanam naka naka naka déedéet ñun loolu du sunu mbir loolu du sunu mbir de mukk même bu dee jàkk la sax même bu dee jàkk léegi sax la nit ñi commencé ndeysaan di dajaloo di jéem a tabax jàkk yi te loolu tamit concurrence kese la koñ bee tabax na étage nañ nañ étage ñun tamit koñ bee karole nañ nañ karole parce que ñooñu ay jeune lañ ñun ay jeune lañ ah ah ne gënuñu ñu ah gis nga loolu rek wala loolu kese koñ boo dem gars yi dajaloo li dafa jéem a kii concurrence la wala yahudi yi ñoom dañoo dajale seen i mbooloo yàlla moo nu koy nettali mu ne wa qaala taifatum min ahli alkitab benn kuréel ci ñooñu téere yahut ak nasaraan dajooloo nañ lan lañ wax aminu billazi unzila ala alladina amanu aminu gëm leen billazi ci li nga xam ne unzila wàcce nañ ko ala alladina amanu na ngeen dem ci jullit yi ngeen gëm wajahan naari bëccëg bu ñu jullee fajar rek wala bu ngeen jullee suba bu ñu jullee suba pare rek wala bu da ngeen di bàyyi bañ nekk ci jàkka ji tisbaar di julli ngeen ñëw bu ñu sëlmaleen ngeen ne ñun de dañuy tuub waaw ngeen nekk mbooloom xori nag ñu ne ah allahu akbar gaa yaa ngi ñëw tuub gis ngeen woote bi jàll na waaye bu ngeen duggee ci lislaam waxtu woowu tisbaar takkusaan timis gée bu ngeen julli say rek wax leen ñun gëmatuñ de génn nañ ci ndax lii wóorul su ko defee ndax ngeen génne ay nit ngeen yóbbaale ñeneen wala du loolu la yàlla wax ah aminu gëm leen billezi ci nga xam ne unzila wàcce nañ ko alal lezina amanu ci ñi gëm yàlla wajahan naari bëccëg waaye wak furu weddi leen axirahu fin bi guddi gi bu ngeen demee ba guddi ba jant bi waaj a so rek ne leen ah ñun ci suba ñëwoon nañ fi tuuboon nañ waaye ndeke mbir mi wóorul am na lu ci laqat su ngeen génnee rek da ngeen di yóbbaale ñi am dooful iman da ngeen di yóbbaale ñeneen lii xam ngeen ne du lu naw ñi fan lañ jëlee xalaat yi pexe mi fan lañ ko jëlee parce que dañuy toog di xalaat ñoom li ñu gëm naka la ñuy def ba mu avancé waaye leneen lu dul loolu naka la ñuy def ba mu yàqu. yahud yi tey li man moo tax dëkk yu mel ne Sénégal kenn dootu leen largué ay bomb lu tax parce que dañuy dañuy tëral ñetti pexe am na dëkk yoo xam ne ay bomb rek ñoo leen mënal dara ñooy ñooy waa Afghanistan nga xam ne kenn mënul leen dara ñooñu dañoo am imaan am na ñoo xam ne nag da leen fa yóbbu ñoom Youssou Ndour rek ak ñoom Baaba Maal ak ñoom Kiné la ak nawetaan ak mbër su ko defee yéen ngeen noppalu ñooñu moom bu ngeen leen yóbbee loolu rek jaratul waar dootuñu julleeti dootuñu jaamu yàlla dañuy caaxaan rek acca bismillah na loolu bëri foofu rek bu ngeen leen yóbbee waykat yi yóbbu leen làmb ji yóbbu leen simbkat yi yóbbu leen bërikat yi ah da ngeen di fexe xeet bu nekk maanaam su ngeen demee foofu fexe leen tukulóor yi ngeen utal leen waykat bu foor ngeen ut olof yi ngeen utal leen waykat ngeen ut soose yi ngeen utal leen bërikat ngeen dem ci joolaa yi ngeen utal leen bërekat ngeen dem ci séeréer yi ngeen utal leen fecckat su ko defee kenn ku nekk ci ñooñu rek su commencé rek ñeneen ñi daal di dem topp leen danañ bàyyi diine bi topp woykat yi ak bërekat yi ak fecckat yi ak footballkat yi ak ak ak ak ak ak loolu moom jarul ngeen leen fay sar largué ay bomb mu ne am na ñeneen ñoo xam ne nag dangeen leen di jox xaalis ngeen leen joxe xaalis rek nit ñi topp leen ngeen formé ñeneen ñoo xamante ne da ngeen leen tuddee ay nitu lislaam ñu bàyyiloo nit ñi ñii ay julli ñii duñ woor ñii yombal diine bi ku ma gis rek dugg àjjana ñoo rek toog waaw bu lekk jotee ñu indi lekk ñëpp lekk ku ma gis dugg àjjana da ngeen di fexe wootekat yooyu bëri foofu ñenn wootekat yi sax nañ wax ne ñoom ay yonante lañ yàllaa leen yónni wala lii may waxee bu fekkee amul Sénégal rek da ngeen di wax ne amul.
am na.
léegi nag xeet bu mel noonu fu ñuy gëmee lislaam te ñooñu di woote ñëpp li ñuy woote téere bi da koo dajji téere bi d'accordu ci yéen a ngi julli kan wax ngeen julli mi ngi ni am ñoo xam duñ julli léegi yow jullit nga buy julli kii jullit bu dul julli la te yéen ñaar yéen a bokk réew mi yéen ñaar yéen ngeen d'accord nekk benn boo dajee moom ne ko asalaamaaleykum waaleykum salaam na nga defee macha allah góorgóorlu dégg nga li nga nekk dëgg la mu ne la yow tamit li nga nekk dëgg la ah kii jullit bu dul woor la mu ngi julli waaye moom nee na woor bokk ci kii julli la waaye du dem màkk kii julli la waaye day ëppal juróomi jabar day am ñi day ëppal ñeent xoolal gis nga xoolal yooyu yëpp est-ce que amu fi fuñ jëm yooyu yëpp ay pexe la yu ñu dugal te xamuñu parce que yàlla moo nu ko nettali yàlla subhanahu wa taala moo ne wa qaalat wax na taifatun taif mooy lan mooy kuréel mbooloo fan lañ bokk ñooñu yàlla mu ne ñu min ahlil kitab bokkuñ ci julli ñi de ci yahud lañ bokk ak nasaraan lan lañ wax ñu ne aminu gëm leen billezi ci li nga xam ne unzila wàcce nañ ko alal lezina ci ñi nga xam ne amanu dañoo gëm ñan ñooy ñi gëm jullit ñi na ngeen ko gëm wajhan nahaari bëccëg awalu sabah 9 heures 10 heures 11 heures bàyyi leen ba yonent bi toog génn nekk ci mbooloo mi ñépp wër ko ngeen ñëw def seen délégation nekk ñu bari bu leen yóbbu ñetti nit nag di ngeen di nekk ñu bari ngeen ñëw toog su leen yonent bi ne lu ngeen fiwul ngeen ne da ngeen dañuy tuub bu ngeen tuubee waxtu wu ngeen bàyyi ba timis jot xam ngeen waxtu mbooloo la bu ngeen sëlmalee rek wax leen salaama ñun ñoo gëmoon ci suba xame ngeen ñu ne waa ñu ne génn nañ ci léegi da ngeen di yóbbaale ay nit yoo xam ne seen ngëm di ah ah est-ce que lii wóor na ñu ñëwoon nañ fi sànq ci suba mbooloo mu bari la ñu tuub ñu toog ba léegi ñu génn ah kon ah ñii lu leen génne kon war naa garaaw ah lii est-ce que wóor na nga commencé sikki sàkk gis nga lan lañ bëgg a dugal ci nit ñi mooy sikki sàkk lii nag pexe yi du tëdd di nelaw moo leen ko may dañ toog def ay étude wala ay planning familial ay étude la nas yahudi ak nasaraan yi dañuy toog xool adduna bi ci ñun am ñun dañoo màgget parce que suñuy nit benn jabar lañ am ñaari doom pare jullit yi moom dañuy am ñeenti jabar di jur rek di dem bu yàggee dañuy dominer monde bi gis ngeen chinois yi dominer nañ monde bi mu neex nu naqar instant bi chinois yi ñoo fi ëpp de économique réew adduna bi nangu nan ko ëpp nañ banque mondiale alal ëpp nañ FMI alal loolu moo tax ñu bëgg nangu Afrique américains yeeg français yi anglais yi di xeex ak ñoom fi mu nekk chinois yi ñoom xëy na lu leen yàlla dimbale mooy ñoom du ñu xeex l'islam ñoom ñu ngi liggéey rek di avancer di dem américains yi nag ñoom l'islam moo leen teree nelaw parce que lu tax parce que yahudisme fa la nekk mooy base bi yéen nag loolu ngeen dul xam yahud yi mooy Amérique ñooy seen baay ñooy baayu yahud yi islam moo leen teree nelaw xëy na chinois yi ñoom seen yoon nekk ci loolu moo tax yàlla subhanahu wa taala dimbali leen ñuy nangu adduna bi ndànk ndànk fi mu nekk nii ñëpp ci ginnaaw chinois yi leen nekk amma yahud ak nasaraan chaque jour ñu ngi fexeel l'islam parce que ay noonu lañ yàlla moo tax ci alxuraan yàlla lu mu nu wax mooy yahud ak nasaraan chaque jour looy dégg mu ne la ahlul kitaab ahlul kitaab ñooy ñan mooy yahud ak nasaraan na ngeen gëm loolu wajahan nahaar njëlbeenu bëccëg waaye wakfuru na ngeen weddi axirahu fil masa ngoon gi su ngoonee rek weddi leen lu tax di ngeen yóbbaale ay jullit waaw di ngeen yóbbaale ay nit di ngeen bu fekkoon ne am na ku doon julli ci chaque jour gis loolu ah jàkka ji de dootuma fa demati ndax tey gis naa mbooloo mu bari weddi nañ tey wala place bi dootuma fa dem wala lii am na lu ci nekk parce que ñii ñu bari lañ ci suba ñëw nañ fi tuub ci ngoon ñu génn ci waaye lii pexe lañ ay pexe yàlla wax ñu ko yàlla mu nañu subhanahu wa taala suñ defee loolu kon la allahum lu ëpp ci ñoom ñoom ñan julli di yarji'un danañ dellu si gis nga danañ génn ci lislaam li yàlla moo ñu ko nettali kon yàlla moo xam ñun xamunu yàlla bu nuy wax pexe yi mooy kon dañoo war a jël sunu ngànnaay jël sunu matuwaay ba ëllëg ak si biir yahudu du nu fexeel comme tey ni ñu fexeelee adduna bi wala football bi football ay coupe du monde yow ne ngi ni ñu bëri ci ñun am na yenn équipe yi tubaab bi bu ñuy football ñooñu duñ julli ji timis jàkk football mboolem sport yi ngeen di gis ñan ñoo ko créé ñan ñoo moom club yi ñoo ko moom sport yi ngeen di gis yëpp xoolal làmb bi xoolal kase yi ñuy fay ci Sénégal kan moo fi am million yooyu ñooñu ñan ñoo nekk seen ginnaaw bi kenn du ko wax mais xam ngeen ne am na ñu nekk ci ginnaaw ñooñu di joxe millions yooyu benn benn cinq secondes rek nga gañe ñaata ñaata ay cent cinquante millions ay deux cent millions loo xam ne ministres yi sax mënuñu ko am cinq secondes bu jullit ñu bëri nekkaat ay yëf waaw loo xam ni kenn ah loolu loolu kay xam ngeen ne am na ñu nekk ci ginnaaw buñ ko waxul rek buñ ko waxee am na ñu nekk ci ginnaaw loolu di ko financé amul est-ce que amul ci koo xamante ne ci drogue bi la nekkoon bañ jàpp ko boobu ba léegi kay waroon nañoo waroon nañoo def ci loolu audit xool ko mais duñ ko def parce que ñi nekk ci ginnaaw ñoo ëpp doole ñiy jiite réew mi ñoo naan la diw bul ko laal amoon na benn émission bu daan am benn rajo bu tudd oxygène Pikine émission baa ngi doon am comme tey ci guddi 10 heures jëm minuit émission baa ngi tuddoon lii riir lii riir ci dëkk bi man def naa fa émission yu bëri ak ay mbokk animateur bi day xëy day day toog ba ba 8 heures rek mu ñëw bu ñëwee bëgg a def émission bi ñu ne ko am na koo jënd émission bi doo ko mën a def tey ah, pourquoi ñu ne jaay nañ heure bi ay nit ci kaw ñooy jënd heure bi parce que émission bi arrangé wu leen day ñëw rek ñu ne ko jaay nañ ko 300000 10 heures minuit émission boobu noonu lañ ko toppee di ko jënd di ko jënd am na benn jour benn maire bu nekk parcelle moo ko jënd parce que waxtaan bi ñu fa doon def arrangé wu ko mu jënd heure bi yëpp voilà noonu la ñuy def ci suñu télé ak suñu rajo yi film yi ngeen di gis ñuy koy dawal film tubaab yi dañuy jënd heure bi jox leen film bi ne leen tegal leen ñu ko lan moo tax émission islam yi amul doole parce que waa l'islam duñ jënd dara waa l'islam moom duñ ñoom dañuy seetaan rek dañuy croiser la rek ñoom amuñu lu ñuy yóbbu ne tegal leen ñu lii wala moo tax dañuy wax ba sonn bugguñu film yi nangam nangam foog dañ koy teg parce que télé bi li ñuy fay journalistes yi ak techniciens yi xaalis boobu lañ leen di fay moo tax pexe yu ñuy jaaral chaque jour pexe yi day réussir suñu kaw parce que ñun amuñu lu taxaw pour contrecarrer loolu dindi ko fi amuñu ko émission bi su la neexee su la naqaree day am lamb bi bu la neexee bu la naqaree day am parce que amoo doole ci alal ak nangam ak nangam loo ko fi dindee mënoo ko sëriñ yaa ngi nii nañ nañ wax lamb bi moom xam nga lu ñu leen di wax yow lañ tuddee combat bi sax nag ñëwal bëre boo ñëw nga toog ñaan ay yow ñëw ci kanam sëriñ ñaanal ñu bal sax dañ doon yóbbu photo sëriñ yi ci làmb bi am na ci ñoo xam ne sax dañ doon wax kii bu daanoo jumaa ji daanu ndax sëñ bee ko samp man déggoon naa mbër moo xam ne dañ doon wax ne bu daanoo si- jumaa jumaa jooju mu bokk day daanu ndax sëriñ boobu moo ko samp waaye daanu na man de déggoon naa ko xaw ma yéen nag loolu ay pexe la ay pexe la yuñ dugal doomu jullit yi dugal ci réewu jullit ñi pour ñu génn ci lenn rek mooy tax mooy ñu jàpp ci alxuraan jàmm sunna yonent bi as loolu moo ñu ci mën a génne parce que yonent bi loolu moo ko génne woon ba duggul ci kàmb yi mais lii léegi bu ñu ko jàngee ñu toog fii léegi julli suba ay nit ñëw ne tuub nañ ngoon ñoo ñu weddi lan lan- est-ce que ñooñu danañ ñu déranger dañuy xam ne lii yàlla waxoon nañu ko wala mais buñ toogee du ñu def dara du ñu gëm alxuraan xamuñu xamuñu xamuñu fan la ñuy yeewoo du ñu yeewu ba yowmal qiyaamati yàlla mu ne bokk na ci ñoom lu ñu wax ñoom yahud ak nasaraan ñu ne wala tu'minu bu leen gëm ay laa tusaddiqu bu leen dëggal illa lu dul liman tabi'a dinakum ku topp seen diine dañ leen di wax yéen a ngi nii jullit ñi dañoo mën a wax nangam ak nangam waaye bu leen gëm kenn lu dul ku topp seen diine ku nekkul yahud gëmul tawraat gëmul Musa gëmul Isa gëmul injil bu leen ko topp illa lu dul liman tabia diinakum laa tusaddiqu illa man kaana ala millatikum bu leen topp bu leen gëm lu dul ku nekk seen yoon ah tey jii tey jii loolu la ñuy wax Sénégal ah ci tarixa yi sax dañ naan la mbii mi ngonee ko moo bébee ngonnoo ko du loolu la ñuy wax wala da ngay dem ci jàkk ñu julli ba pare wala ñu ne yàlla ñu yàlla def ay jullit ñu ne yàlla ñu yàlla def ci tarixa wala ñu ne yàlla yoo àlla wat en juulɓe loolu la ñu war a wax yàlla ñu yàlla def ay jullit loolu rek mooy ñaan bi kono yoo àlla wat en point ku bokkul foofu bokkoo ci ñaan yi sax loolu naan ne da nga leen ñu ne fatiha léegi sax la ñuy wax fatiha ak salaatu bu waay man parce que yëg nañ ne changement am na bu njëkk ba kenn bokkul loolu loolu baaxul jullit moo ëpp doole leneen waaye bu ñu la gëmloo kër wala ñu gëmloo la mbooloo rek musiba am na mooy bokkatoo ak fee bu njëkk ba da ngay ku bokk ci mazhabu Malik ki bokk ci mazhabu Shafii ki bokk ci Ahmad ki bokk ci Abu Hanifa ñu ne du ñu mayante jabar ban tarixa nga bokk man murid laa ñu ne ñun ay tijaan lañ duñ may murid jabar doo fa bokk kii mu ne ñu ne waaw léegi ñooñu xanaa duñu ay jullit ñooñu ñëpp ci lan lañ bokk ku ciy julli fooy jublu kuy julli fooy jublu am na ci kuy jublu jublu feneen am na ci kuy julli jàng leneen dul alquran am na ci ku gëmul yàlla am na ci ku gëmul muhammad gis nga tàqali bi tàqali bi mi ngi mel ne rek garab goo xam ne moo bokk cosaan bi waaye dem ba ci kaw branche yi ne nii branche bu nekk du laal moroomam loolu musiba la yàlla daf ñuy tere loolu moo tax lii yahud yi ñoo koy wax wala tu'minu bu leen gëm bu leen dëggal bu leen nangu illaa lu dul liman koo xam ne tabia dafa topp diinakum seen diine bu leen topp bu leen gëm lu dul ko topp sa diine waaw yow ban jàkk ngay jullee ñu ne man jàkk bu nekk ñu ne hiihihi. yow de léegi nga bàyyi sa papa lu mu nekkoon foofu boo fa demee rek léegi ñu weddi loola lan lan lay weddi loo lan lay def yéeféer yow fan ngay jullee yow yow gis naa la temps yi fële ngay dem ah ndeysaan maa ngi fàttaliku bi ma gënee nekk xale am benn école bu ñu ma yóbboon naa jàngi arab benn bis ma ñëw di julli rek ma xabdu allahu akbar def ni sama loxo ndeysaan bu ma fa yóbboon mu ne ma ku mu biinoo da yaa jàngu de kota hota hota waane be mbaay ni dégg nga de mu ne dama laa wax na nga jàng waaye waxuma la nga mel ñoom nu nu mel ah mooy la ma pare ma ne ko ah waaw man nan laa mel mu ne ma yaa ngi julli def nii sa loxo yi ma ne ko waaw loolu yonente bi mu ne gis nga gis nga yaa ngi wax léegi nga mel ni ñoom yaa ngi nii di ma wax yaa ngi may tontu yaa ngi may tontu ah nu ñu baaw léegi yow da ngay dem nga jàng dëgg bi mais bul ko def ma ne ko mais lii la yonent bi doon def gis nga aboni mu ne yàqu nga topp nga leen loolu du lislaam lislaam bu leen wax ne ku bokkul fenn bokkul ci ñun déedéet loolu waxu yahud la wala tu'minu illa liman tabia diinakum bu leen topp lu dul ku topp seen yoon wi loolu waxu yahud la yàlla moo ñu ko wax mi ngi nii lislaam lépp benn la amul tàqali ko yàlla mooy sunu borom yonent bi mooy sunu royukaay alquran mooy sunu téere jeex na ñun ñëpp ay mbokk lañ wa anna hazihi ummatukum ummatun wahid wa ana rabbukum faabuduni wala loolu du alquran loolu la yàlla wax kon gis nga barrage yi yi barrières yi nekk suñu diggante dañ ko war a dindi teg fee topp yàlla topp yonent bi topp alquran topp sunna jeex na suñ ko defee léegi balaa weer islam delluwaat ci àdduna bi fu mu nekkoon waaye gis nga caaxaan yi karti karti karti yi yahudi ak nasaraan yi ñoo ñu ko indil sunu borom nee na qul yow muhammad na nga leen tontu na nga wax ne innal huda naka njub huda allah mooy njubal yàlla gis nga li jóge ci yàlla dong mooy njub innal huda al al bayan al haq wa tawfiq al kamil bayanullahi wa hudahu bu ñuy ut dëgg li yàlla wax dong mooy dëgg mbokk jullit yi fii nu nekk ci kaw suuf keneen munu fee indi lu gën a baax lu muhammad indi su fekkee dañuy ut lu ñu gaaw a dugal aljanna wala mu jegeel ñu yàlla li fi muhammad indi moo gën a gaaw wala da ngeen a am koo xam ne li mu indi moo gën a gaaw moo gën a baax loolu musiba la xolal tey su yonent bi waxee nañ def lii beneen waaye ñëw mu ne déedéet duñ def loolu ndax ñun xamuñu loolu ñun lii la ñuy def te moom jullit la te yonent bi lii la wax nañ def fii nu toog tey amul kenn ci ñun kuy wax dara ne mbir mii yonent bi jàngale na ko ci diine laa wax de ci diine ne kenn ci ñun fi xalaat benn mbir ci diine mu laaj lan la ci diine wax ñu xool ndax diine wax na ci walla waxu ci question laa leen jox de ma ne man damaa fàtte sax am na mbokk bu ñu indiloon ay parfum cadeau damaa fàtte cadeau yi incha allah bu may ñëw mardi ay butéelu parfum yoo xamante ne boo ko xeeñoo daanaka di nga ne xeeñ fi xeeñu nga kaaba nga ndax ni mu neexee ndeysaan yàlla na ko yàlla fay dama ko fàtte mais bu may ñëw mardi ah sëy ndax islam wax na ci islam wax na ci islam moo jàngale naka la ñuy takki sëy balaa ngeen di sëy sax islaam wax naka ngay tànnee soo tànnee ba pare mu ne naka ngay takkee soo takkee ba pare mu ne naka ngeen di dundee gis nga sol yére islaam wax na ci booy sol yére sax ban yére ban tànk ngay njëkk a dugal ban loxo ngay njëkk a dugal sooy simmi daal lañ sax islaam wax na ci ban tànk ngay njëkk a sol ban tànk ngay simmi lépp la islaam jàngale léegi nag ñun buñ la nee ah yonent bi de nee na booy sol yére na loxo ndeyjoor njëkk a dugg ak booy sol tubéy tànk ndeyjoor nga ni déedéet booy sol tubéy na gauche bi njëkk a dugg booy sol yére na gauche bi njëkk a dugg loxo gauche ñu ne yonent bi dafa leen a droite kii nee na gauche boobu dafa sori sooy tukki sooy tukki tukkulóor buy tukki ban loxo lay nuyoo tukkulóor nga yow gauche gos la ñuy joxante mais gauche ngay joxante bu ñu gisee waat
lo- loolu mooy gauche loolu ban diine la kan moo ko wax yonent bi lan la wax ngeen joxe olof yi tamit loolu la ñu def kon ñëpp la booy tukki gauche ngay joxe loolu waa léegi rek waa nañ yem foofu ci gàttal Y- yonent bi moom lu mu wax booy ne booy nuyoo léegi yonent bi ne droite yéen ngeen ne gauche léegi nag ngeen ne ah déedéet ñun weddi wuñu yonent bi de waaye waaye ñun weddi wuñu yonent bi de waaye ah léegi yéen lii mooy lan yonent bi droite la wax yow nga ni gauche nga ne ah waaw weddiwuñu yonent bi waaye mag ñi ñoom ah ñu loolu mooy lan yonent bi moom droite la wax xoola yaay solum wax kaana yujibuhu atayaamun fi kulli shay yonent bi ndeyjoor daf ko yéemoon lépp lu muy def ndeyjoor la koy defee buy nuyoo ndeyjoor buy lekk ndeyjoor suy nuyoo ndeyjoor lu muy def ndeyjoor lay tàmbalee mu ne sax nag laa taakulu bi simaal wala tashrabu bi simaal fa inna sheytaan yakulu wa yasrab bi si bu leen lekk càmmoñ de bu leen ko naanee de seytaane càmmoñ lay liggéeyee léegi nag yow ngay tukki nga joxe gauche bi léegi ni ñu ne la ah déedéet déedéet asalaamaaleykum bul def loolu bul joxe gauche indi droite nga ne déedéet déedéet ah kii bàyyi leen ñii ñii moom ay kii lañ ay ibaadu lañ indi indi gauche ah ñu ne la déedéet bul def loolu nga ni waaw waaw xam naa ko waaye xam nga yéen waaw bàyyi rek affaire bi du dem léegi nag ñu ne buñ la nee yow royo yonent bi nga ni déedéet man yonent bi laa gëm boo gëmoon yonent bi doo def lu yonent bi defoon soo yonent bi doyoon doo def lu yonent bi def sallallahu alayhi wa sallam léegi lu tax yonent bi ne lii moo baax yow nga ñëw nga def leneen wala yonent bi lu mu wax beneen nañ jël beneen booy génn sa buntu kër lu yonent bi wax na nga wax bismillah tawakkaltu ala allah la hawla wala quwwata illa billah loolu leen wax ñun fii bu ñu génn suñu buntu kër suba teel lu ñuy def dañuy jël ndox sotti ba mu tooy xepp waaw xool ndeyjoor xool càmmoñ sotti boo demee ci oto bi looy def nga sotti ci ndox boo demee ci table bi ngay jaay nooy def nga sotti ci ndox boo demee buntu bureau bi nooy def nga sotti ndox fàtte nga waa Bagdad ak waa ñetti mbaar ak waa Gunaas ndox moo leen génne ba ñu yóbbu leen jaxaay fàtte nga firawna yàlla ci ndox la ko labaloon fa nabasnaahu fil yammi wa huwa mulim fàtte nga yunus ci géej la ko yàlla sànni woñ jëg wann ko faltaqamahul huut wa huwa mulim dan kay du ndox du ndox mi waaye yàlla la naka la yonent bi nee ne defal li yow nga ñëw def leneen ah yonent bi saa salaam nee na soo amee doom bisu ngénte bi na nga ko wat ba mu set du loolu la yonent bi wax yow nga am doom nga ne ala ko laboo bange min mbatta minen maanaam benn côté lañ koy wat nii digg bi ñu jël karaw bi côté bi ñu bàyyi côté bi ñu ne li na ne ko ni min tawi mawɓe ɓeyno mbaɗa ah léegi nga ni yow weddi woo yonent keneen mu ne mus naa am sama rakk boo xamante ne xam nga lan moo tas sëyam xale bi bi mu juddoo dañ ko war a ngénte ñi ko doon tudd si ñëwuñu ñu leen di xaar depuis suba ñëwuñu heure bi jot ma ni wat leen ko ñu wat ko ñu tudd ko ñu tuddee ko suñu benn xar rakk ñun tam ñu tuddee ko noonu ñooñu toog ba ba heure bi ñu ñëw indi xar bi heure bi ñu ñëw ñu ne ah waaw ñu ne leen yéen xaar nañ leen ba sonn ñu ne ah dañ doon lijjanti quoi ñu ne ana liir bi ñu ne mi papa ji mu ne mu ne eh da ngeen koo wat ñu ne waaw mu ne lu tax ñu ne ah ñu ne ñun kenn duñu wat lu dul xale bi màgg mu ne wat ma ñu doog ko wat rek ñu mer ñu jël xar bi delloo ko gis nga xoola aada boobu xale bi kenn du ko wat lu dul moom mooy màgg bis bu nee wat leen ma rek ñu doo koo wat loolu ban diine la est ce que yonent bi loolu la wax ñun Sénégal dañu ne dañuy topp yonent bi su yonent bi ne def leen li ñu def leneen ba pare ñu ne waaw ñun kay est ce que suñu ne Muhammad ñu ne est ce que sallallahu alayhi wa sallam te yonent bi lu mu wax def leen kenn du ko def yonent bi lan la wax ci góor ak jigéen buy nuyonte waaw lu ci yonent bi wax est ce que yonent bi nee na góor ñi nañ nuyu jigéen ñi ñun fii boo ko bañee def lu ñuy wax mus naa dem benn benn ajaa buy dem mag ñu wooñu nañ ñëw ñu ñëw toog benn jigéen ñëw de di nuyoo asalaamaaleykum paay di ko nuyu salaamaaleykum nee asalaamaaleykum ba mu yegg si ma rek mu ne ma asalaamaaleykum benn paa bu toog sa mu ne indi indi man indi ndeysaan ndeysaan femme indi mu dóor waaw ma ne ko ah yonent bi de sallallahu alayhi wa sallam nee na ku jël sa loxo teg ko ci loxo jigéen bu la lewul yowmal qiyaam sa loxo boobu dinañ ko dugal ci biir jahannama xam nga lu mu wax mu ne bu bii lakkee ma dese bii loolu la ma tontu mu ne ah bu bii lakkee ma dese bii waaw gis nga xoolal tolluwaay boobu kooku fu mu toll ngir rek réer réer fii dañoo réer benn borom xam-xam day wax ne ñun dañoo tuub mais est-ce que tuub nañ day wax Sénégal tuubeen lañ mais est-ce que réellement tuub nañ loolu mooy laaj bi est-ce que dëgg-dëgg tuub nañ dal nañ yàlla jubal mbokk jullit yi sunu borom nee na qul innal huda bu fekkee dëgg rek ngeen di ut njub mu ne hudallah mooy dëggu yàlla bu fekkee dëgg yàlla rek moo dëgg la ñuy jub yàlla li mu indi mooy dëgg te mooy li mu jox yonent yàlla muhammad alayhi salaatu salaam mu ne an yu'ta ay yu'ta ahadu nubuwoo diinan wa fadlan ndax kenn dañ koy jox diine jox ko yonant jox ko ngëneel an yu'ta ahadun misla ma utiitum aw yuhaajjukum inda rabbikum waa kenn dañ koy jox lu ko yàlla jox ci xéewal ba pare mu taxaw di weranteeg yéen ñoom yahud ak nasaraan yàlla defal na leen yonant yàlla defal leen njub ñu xam dëgg bi ba pare ñu teg ko fee ñu ñëw ñuy weranteeg yéen mooy lu am tey da ngay gis koo xam ne xam na ne dëgg-dëgg lii mooy diine lii mooy dëgg waaye ay intérêt moo nekk ci ginnaaw su ko leeralee rek day perte intérêt yi mu noppi da ngay gis fii borom ku ñuy tuddee ah ku nit ñi topp bokk parce que ñenn ñi moom doo ñemee wax sax borom xam-xam lañ waaye ku nit ñi topp mu ne ñun sunu yoon ci sharia ñun sharia sunu yoon nekku ci léegi kooku lu ko lu ko julli di di doye xanaa sax ku ko waxul sax nit ñi war nañoo topp kooku sax comme waxu ko waaye ki nga xam ne dafa toog en direct télé wala rajo wala mbooloo mi mu ne ñun charia suñu yoon nekk ci de ñun lii rek la ñuy topp li mu ngi nii ku bëgg nga ñëw ku bëggul nga bàyyi da ngi ne ñun dañuy ñëw dañuy ñëw ah te moom nee na yoonam nekkul ci charia ba pare mu taxaw léegi kooku wax yoonam nekkul ci sharia ba pare mu taxaw léegi di dàggasanteeg jullit yi amoon nañ benn góor suñu koñ xëy na am na ñu dëkk fii duñ ma bàyyi ma fen daawul woor de du woor waaye day xuloo ci weer feeñ na tey lañ war a woor suba lañ war a wari te moom du woor du waralul du julli du woor waaye fuñ ne weer weer wi feeñul di wër koñ bi feeñul ñu ne ko yow yaa xëyti mulaana yow wooroo wooraanoo yow lu ci saan bu wóorul kay lu mu ci werante ndeysaan dafa am benn benn borom xam-xam bu nekkoon Sénégal tukulóor la bu duma wax tur bi nag dañ ko mus a jàpp tubaab yi jàpp ko ca colonialiste la woon yóbbu ko police centrale comme tubaab bi fi nekkoon tubaab la France la jóge ñëw nekk commissaire police centrale ñu ne ko moom day saaga sëriñ si tubaab bi dem jàpp ko indi ko tëj ko léegi nag tubaab bi ñëw di ko laaj ne ko yow yow yow da ngay saaga tijaan yi di saaga murit yi di saaga laayeen yi di saaga xaadir yi waaw yow loolu foo ko teg mu ne ko lu ci sa yoon ñun julli ñi ñun ñooy xeex yow yooyu ñooñu may saaga tijaan yooyu ak laayeen yeeg murid yooyu xaalis yooyu may sa yow lu ci sa yoon yow ban nga bokk fan nga bokk ci ñooñu kooku ne ko non moi je ne sais pas musulman je suis chrétien mu ne ko bon lu ci sa yoon kon te ngaa bàyyi ñun ñooy xeex ñun jullit lañ ñun ñooy xeex yow lu ci sa yoon gis nga maanaam yow kon la dama bëgg a jàngale foofu rek ne nit ki li yoonam nekkul waru cee dugg waaye loolu pexe la pexe pexe yahudi yi ñoo ñuy def loolu ne ñii ñii la ñii ñii la ñii ñii la ñii ñii la su ko defee ñuy xeex nag fekk ñun ñëpp benn lañ ñun ñëpp yàlla lañ mooy suñu jubluwaay ñun ñëpp diine lañ gëm ñun ñëpp àjjana lañ bëgg ñun ñëpp safara lañ ragal ñun ñëpp dañoo bëgg topp ci ginnaaw yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo tax yàlla ne ñu ne qul waxal yow muhammad inna al fadla naka ngëneel bi yadillaahi mu ngi ci loxoy yàlla yuutiihi yàlla moo koy jox man yashaaw ko neex ñun waa Sénégal aaya bi waroon na leer ci ñu su aaya bi leeroon ci ñu kon duñ def waa Màkk ak waa Medina ay wujj ndax da ngay dégg ku ne Arafat Arafat dégg naa ñu ne lundi la ñuy taxaw Arafat mais ñun waa Sénégal mardi mooy sunu Arafat ah ah waaw yéen waa Sénégal fan ngeen jëlee Arafat fan la seeni ujaaj di taxaw Arafat fan la fan da ngeen am Arafat ñu Arafat boobu fan la nekk Sénégal ban côté di ngeen ko wax waaw dañu war a xam ne xéewal ngëneel jagle yàlla moo koy jagle yàlla moo jagleel arab yi yonent bi Muhammad yàlla moo leen jagleel makkatal mukarram yàlla moo leen jagleel islam yàlla moo leen jagleel alquran yàlla moo leen jagleel safa ak marwa yàlla moo leen jagleel maqaama ibrahim yàlla moo leen jagleel hajaratul aswad yàlla moo leen jagleel madinatul munawwar yàlla moo leen ko jagleel tekkiwul nag ñun bu ñu gëmee bokk ci waaye ñun bu ñu toogee fii naan déedéet bu fi kenn nodd noddu arab bu fi kenn nuyoo nuyoo arab boo waxee assalaamu aleykum waram ñu dañ lay xoolal même booy jàng alquran sax aoudu billahi min alchaytan arrajim ñu ne xoolal muy arabal ah quran lan la yàlla wax quranan olofiyan quranan olofiyan loolu la la quran wax quranan pulaariyan quranan séréeriyan quranan joolaayiyan loolu la yàlla wax lan la yàlla wax quranan arabiyan ah waaw gis nga même arab alquran bi langue arabe la ko yàlla wàcce loolu yàlla moo leen ko jagleel moo tax yàlla mu ne innal fadla bi yadillah xéewal ngëneel mu ngi ci loxo yàlla yuti yàlla moo koy jox man yashaa'u ku ko neex ñoom la yàlla neex yàlla jox leen ko mais tekkiwul na ñooñu gën de gënuñu ñu de lu tax inna akramakum indallahi bu leen fàtte bilal bokk na jamonoog abu jahlin bilal dugg àjjana abu jahlin dem safara bu leen fàtte bilal bokk na jamono ak umaya bilal a nga àjjana umaya nga safara te nit ku ñuul la woon bu leen fàtte wahshi nit ku ñuul la woon bu leen fàtte umama nit ku ñuul la woon te ñoom ñu ngi woon ci wetu yonent bi kon inna akramakum inda allahi atqaakum ki gën a baax mooy ki gën a ragal yàlla yàlla ne laa yonent bi ne laa fadlun li arabiyin ala ajam illa bi taqwa annaasu sawaasiya ka asnaanil musti ñëpp a yem comme ba ñu peñe nu mu yeyme yonent bi ne ñëpp a yem amul ngëneel ku la gën a ragal yàlla moo la gën waaye mu des nag place yi sell yi yàlla moo leen ko jagleel ana suñuy ujaaj fu ñu dem bu fekkoon ne Sénégal kay am na fu ñuy aje ñu toog fi wala lu tax ñu dem ñun bu ñuy julli fan la ñuy jublu mu ngoog parce que yàlla moo nu ko sant kon innal fadla ngëneel bi yadillaahi mu ngi ci loxoy yàlla yuutihi yàlla moo koy jox man yasha ko neex wallaahu yàlla waasiun alim yàlla ku yaatu la yàlla moo xam allahu akbar yàlla dafa yaatu te yàlla xam yàlla wasia kursiyuhu samawaati wal ard yàlla waasi alim mu ne yaxtas yàlla mooy jagleel bi rahmatihi yërmande man yashaaw ko neex nit ñi li ñuy bari bari bari yàlla ku ko neex mu jagleel la yërmandeem moom yàlla wallahu yàlla zul fadlil azim mooy bonem xéewal borom ngëneel yu màgg yi subhanahu wa taala mu ne inna al fadla bi yadillah ay inna tawfiq lil iman yàlla tawfiq bu muy defal nit ba mu am ba mu gëm yàlla wala hidaaya mu nekk ci njub lil islam bi yadillah ci loxo yàlla la nekk nit ñi li ñuy bari bari bari ci biir dëkk bi fii fii ñu nekk ci biir gox bi yéen rek yéen a ñëw tafsir wala est-ce que amul ñu ñu nekk zéro mètre xam ne lii mu ngi am fii bés bu samedi bu nekk te duñ ñëw dañuy romb ne ñun bokkuñ ci amaana ci yéen fii am na ñoo xam ne jóge nañ fu sori wala kon yàlla la yàlla la moo tax mu ne xéewal jub indi nit ci dëgg man yàlla maa ko yore maa ko moom su ma neexee ma def ko am na ku dëkk zéro mètre lii bis bu nekk xéewal bii mu koy romb du ci mën a am parce que yàlla boolewu ko ci moom sunu borom subhanahu wa taala mu ne waasiun zu siatin bi fadlihi wallahi ay xéewalam yaatu na mbokk yi xool leen addina bi ñëpp yàlla moo leen di dundal nit yi jinne yi lii naaw lii raam lii fii lii lii lii lii yëpp yàlla yàlla mu ne wa ma min dabbatin fil ard illa ala allahi rizquha da ngay gas suuf suuf si nga koy gas misaal sa foos day fees nga jël gaskat ngay gas foos bi mu gas 3 mètres mu gas 4 mètres mu gas 5 mètres ba mu xóot yenn saa yi mu sànni peel nga gis benn sax bu ngand génn ci biir suuf si foofu lu mu doon lekk foofu lu mu doon lekk ah waaw lu mu doon lekk foofu ci biir foofu ci biir foofu lu mu doon lekk ba mu toll noonu deewul lu mu doon naan xooleen melentaan yi melentaan yi bokk yi lu ñuy lekk lu ñuy naan ah allahu akbar xoolal loolu xoolal muus yi ñu ngi lekk ñu ngi naan xoolal kaña yi ñu ngi lekk ñu ngi naan ñooñu ñëpp kan moo leen di jox ñuy lekk ku leen di jox ñuy naan yàlla subhanahu wa taala te ñooñu ñëpp ñu ngi dund wala waa Sénégal yenn saa yi ñu mere yooyu ah ñu pompe dëkk bi yëpp nit ñi jënd ay yotox indi ay sànke yooyu ne leen noppalu leen ñun mënuñu leen fee jëlee yàlla moo nu fi indi yooyu boo ngeen pompe yooyu boo ngeen rey mënuñu leen fee jëlee ñun yàlla moo nu fi indi dañuy lekk danañ lekk ba suur naan seen deret yi ba ngeen jeex tàkk mënu leen ñoo rey nga pompe ba sonn ñaar yoon bi ngay pompe sa néeg ñaar yoon ngay fanaan ci biir sànke bi yenn saa yi am yow bu fëtt sànke bi ñëw ne la cuuj kaata la yàlla moo ne damay lekk damay lekk mënoo ko fee jëlee wala weñ yi dinaaw mën ngeen ko fay jële mën nañ fay jële melentaan yi kaña yi ñaata yoon ngeen leen di posone di leen rey est ce que mën ngeen ko fay jële li la fi indi moo leen fi indi ñi ki la fi indi moo fi indi kaña yi mënoo loo leen dara mënoo fexe bañ jóge fi kon nag nañu xam ne yàlla subhanahu wa taala mooy sunu borom mooy borom lépp wala mu ne moom yàlla subhanahu wa taala waasiun alim yaxtas moom yàlla mooy jagleel bi rahmatihi yërmande man yasha wallahu yàlla zul fadli mooy borom ngëneel al azim bu màgg kon sunu darsa tafsir tey fii la yem ñu ñaan bur yàlla tabaraka wa taala mu nangul nu jéggal ñu njuumte yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa